semaine. est-ce que ñu am ay information comme quoi euh, moo tax dafa général. non man dama mës a mel nii ma mës yaakaar naa ne dañ ne euh, nit nuñ ko yaree ak ngëm-ngëmam moo koy définir man dañ ma yàgg wax ne di wax dëgg ci loo mën ci toll. ma yàgg di wax samay ay waajur samay njaboot su ngeen reyee nit sax leen na ma ñun ñoo ko def. Mm-hmm. ma dem ci mais ku ma ci fen dama lay dama lay esquinte dama lay gaañ. mun a wax loolu sa njaboot pare yow nga nekk te yow doo ko dëgg doo def dëgg. Mm-hmm. man si la mun lu ma balaa ngay euh, digle kenn sangu na nga sangu. Mm-hmm. man wax dëgg si laa nekk tout le temps noonu laa mos a mel. ok kon injustice bi euh, mën nañ ne bokk na ci li nga xamante ne moo indi engagement politique bi tey jii. non commencé woon naa déjà di penser euh, à un mouvement mais mouvement citoyen ma tudde woon ko récemment pour l'éveil de la conscience citoyenne et le civisme mais ma jóge temps ma koy sax lancé. ci la événement bi am moo gën a poussé nag suma engagement bu dugal ma ci engagement politique. Mm-hmm. loolu moo dugal ci engagement politik indi ambition dama bëgg a jiite réew mi. non ambition jiite réew mi aw ma woon ambition aw ambition bi xalaatuma ko woon sama kër laa toog après événement bi mouvement la voix du peuple mm-hmm. ne ñëw sama kër seet si ma ne ñoom am nañu ñu àndal. te dañoo bëggoon ma jàppale leen ci élection yi njëm man neen ni ngeen di wax ni day man mënuma xalaat dem ci élection parewuma ci élection te wax naa ne aussi candidat candidat amagul ay candidature moo am mhm. damay bàyyi ba ñu conseil constitutionnel ne kii ak kii ñooy nekk candidat su boobaa ma sóobu ci élection ñu ne ma ñëw ñu seet si la pour nga jàppale ñu dañoo ñëw seet la pour nga nekk suñu candidat kaay nekk suñu candidat ak kaay leen ma jiite leen yemul. Mhm. yàlla bu seen yaakaar tas ñoom. te yàlla yàlla nañ ci gis Sénégal yàlla na ci Sénégal gis seen. kon mouvement boobu moo la investir voix du peuple. non dañoo ñoom dañoo bokk ak man. Mhm. ak sama mouvement ñu créé benn alliance bi ñuy wax ànd suqali suñu réew assure. Mhm. ànd suqali suñu réew assure moo ma moo ma investir. du mouvement bi kese du sama mouvement kese ñun ñaar la ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ànd ak ñoom te fesalaguñ seen bopp. ok mën nañ la boole ci catégorie euh, candidat yi nga xamante ne ñoom dañoo am lu leen metti dugg doo ko dugg ci làmb ji par rapport à une injustice wala loo xamante ne dañ jàpp moo tax ñu dugg ci lu ñu dund moo moo moo moo leen defloo sursaut bi. xam nga loolu dafay réveiller rek li nekkoon ci yow. Mhm. Sénégal quel que soit yow soo am demee ba tollu feneen yaa ngi xalaatal réew mi mhm. di xalaatal lakk nga mun defal réew mi naka ngay liggéeyal la sa réew te loolu laa mu a def liggéeyal sama réew laa mës a def. xam-xam bi mu ngi fi. mais avec la grande muette ñoom daawuñu wax. waaw mu ngoog beneen fànn bi. waaw ma nekkoon ci beneen fànn di liggéeyal sama réew. mënu ma wax li may xalaat mënu ma def li ma bëgg tënku ci nag euh, parce que sama choix la woon comme ni nga ko waxee la grande muette toog jàpp sama njàmbur mais bu ma demee ma nekk retraite boo demee ma nekkee retraite soo defee politique politique def la yow sa bopp. comme ni ko ko waxee ci li muy laaj yëpp. il n'est jamais trop tard pour bien faire na fekk yow lan nga gis ci politique ak lan mooy politique pour yow donte ñu woon ci armée ñu ngi doon xalaat politique parce que armée dañoo jékki euh, avec le président Wade ñu jox ñu droit de vote. dès l'instant où am nga droit de vote yaa ngi xalaat politique yaa ngi politique. mais su ma waxee loolu mooy par rapport base bi nga war a am ñi nga war a mobiliser ak yu ni mel implantation nationale bi nga war a am diaspora bi aussi c'est du tout facile. non dara wul. fukki gisee xam nga militaire moom day def toujours de prospective day day day seeti lu sore mu koy mu koy mu koy jéem a gis. Mm-hmm. man euh, bien vrai que xalaatu moon dem élection mais sama mouvement. Mm-hmm. maa ngi ko implanté woon déjà dans les quatorze régions. doon xalaat dem ci département yi mais déjà dans les quatorze régions. Mm-hmm. amoon naa fa ay nit. donc déjà euh, amoon naa cette couverture. parrainage bi kon euh, waru ci am jafe-jafe. non duñ ci am bu soobee yàlla duñ ci am jafe-jafe. di ngeen jàll. dañuy jàll incha allah. non du ma ne dañuy jàll. Mm-hmm. mais dinañ ko matal. matal bi moom dinañ ko def. Mm-hmm. dañ ko matal ba denc ba denc lu teeloog lu ñuy laaj. mbaa doo jot si doublon yeeg gars yi ñuy yekkale rek du euh, pièce d'identité boo dajalee dugal sa panier rek yóbbu. ah yow de xam nga ne loolu moom kenn mënu ci dara parce que nit ñaa ngi di photocopie seen carte sur le ñu gis mooy am na ñoo xam ne seen photocopie carte dañ koy def photocopie yu dul jeex di jaay rek. Mm-hmm. donc ñu ngi def suñu ay euh, kéema kattan pour ne pas daanu ci loolu. ñu jéem a sécuriser. ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël seen ay carte d'identité ok waaw sa candidature am ñu ko gis comme koo xamante ne bu ñuy classé candidature dañ koy classé si candidature yi nga xamante ne dañoo génn ci flanc Pastef loolu lu mu lay def génn ci plan Pastef man bokkuma Pastef ci flanc Pastef quoi maanaam candidature yi nga xamante ne dañu jàpp ne dañu jege Pastef wala dañuy défendre euh, Ousmane Sonko ku yu ni mel moo su fekkee na défendre Ousmane Sonko mooy mooy génn ci plan Pastef ko ku mu neex nga wax ko mhm. man dama yaakaar ne citoyen Sénégal la woon nekk encore un leader politique bu am tur ci dëkk bi am ambition ci dëkk bi am politique am ci dëkk bi ñu teg ko loo xam daan boo xam ne man injuste laay dépendre. Mhm. injuste laa mënul nangu. te armée sénégalaise ñëpp xamee nañ ma loolu. mënuma musuma nangu injustice. Mhm. quel que soit de quelque bord ça vienne musuma ko nangu. donc j'ai vu que c'était une injustice ma wax ci sama xalaat. Mhm. su fekkee noonu la ñu gisee ne euh, plan Pastef laa jógee amul problème. ok bu ñu duggee ci actualité bi colonel ma fàttali ne colonel Cheikh Tidiane Mbodj la dalal euh, moom candidat la à la ci élection présidentielle yi bi liste bi ban numéro leen numéro colonel sori nga de. waaw mais sori boobu amul solo. Hmm. tirage au sort la xanaa da nga yéex a dem. tirage au sort la suñu njëkkee suñu ma njëkkee tiire rek. Hmm. mu mu réglé wu. waaw waaw comme affaire foofu la ca euh, conseil <laughs> constitutionnel. waaw fa la tirage ba di amee. fa la tirage ba di amee waaw nee naa moom ñi ci nar am xéwal mooy ñu njëkk dugg ñooñu mën nañu mucc ci ci ci doublon. ñu njëkk a dugg daal parce que deux cent et quelques moom. ñu njëkk dugg. Hmm, hmm. la moom te man lii eh, dama ci seet dama ci déglu sax démb euh, mu Ndiaye Bala je pense je ne le connais mhm. mais wax na dañoo waroon defee joxe euh, demander euh, caution bi balaa ba caution bi. avant investiture te man loolu loolu loolu naa ko defee. loolu d' accord naa parce que su fekkoon ne ku nekk ñun la joxee 30 millions balaa ngay dem. kon yaakaar na duñu egg deux cent candidats duñ fa egg ça c'est sûr et certain maintenant ñu dugg ci ponk actualité yi euh, Ousmane Sonko ni ki euh, suba euh, fële ca tribunal d'instance bu Ziguinchor war nañu wax lu jëm ci euh, génne bi ko génne ci liste yi euh, ci élection euh, ci liste électorale yi mu gannaaw mu am ba jógee fii ci cour suprême fii ci ndakaaru ñu gàntal ko ko la mu fa doon sàkku pour jot fiche de parrainage naka nga gisee épisode boobu Ousmane Sonko di dundu jamono ji mu mel nii nag bokkam ci élection yi mi ngi bëgg tax a suuf waaw su ko cour suprême xasee ba wax mhm. yaakaar naa ne feneen fu ñu mën di dem bu ñu fàttee cour suprême nag mooy mooy mujj mooy mujjantal gi quoi fële amoo fa yaakaar. aw ma ci benn yaakaar. ah bon non nu ma ci amee yaakaar. boobu léegi ban ban ban recours la Ousmane Sonko def mu positif recours bu mu def dañ ko koy gàntal donc man aw ma ci benn yaakaar. Mhm. waaw donte nag lu ma gën a lool mooy sénégalais yëpp ku ku nekk candidat nga bokk ah. mhm. waaye aw ma ci benn yaakaar. dañ ciy gis injustice jaay doole. Ousmane lu bëri lu ko dal jaay doole la donte nag quelque part euh, aussi euh, te wax naa ko ci euh, ay ñooñam wala ñu ko ñu ma jot a déglu am na instant yu tolloon euphorie bi amoon na ba ñëpp yaakaar ne moom kenn mënu ko dina def lu mu bëgg a def. Mm-hmm. quelque fois communication bi sooxee woon na. Mm-hmm. parce que virulence bi mënoon na bañ demee noonu. mënu ko wàññi. virulence bi mën na mënoon a bañ demee noonu te man loolu man wax naa ko. ba ma demee fekk ko Ziguinchor. wax nga ko Ousmane Sonko. wax naa ko gisee ngeen. Ousmane Sonko gisee nañu benn yoon la ñu mës a gisee mooy bi ñu bi ñu bari bi mu barricadé woo à Ziguinchor man dama paas dem dugg avion dem seeti nga dem ba këram. dem ba këram mu dalal ma. pandant deux heures et demie ñu waxtaan boobu réew mi moo ma ñor te boobu réew mi amoon na fu mu tolloon. Mhm. bu ma jógee foofu dama dem seeti président de la république. Macky